waaw ñu ngi nuyu yëpp ñu ñuy ñu ñuy seetaan ci euh, mbokk ñi nga xamante ni ñoom ñëpp ñu ci net bi di internet di xool référence actu mm-hmm. doon na ba nga xamante ni franchement dañu koy suivre partout mais aussi di joxe des informations vraies parce que ils vont jusqu'à la source mais ni fii ni mu soree ñëw ngeen bi fii aussi pour am la bonne information on vous remercie de ces li ñu tax a jóg euh, d' abord mooy démb gis nañ nga def benn randonnée ànd ak ci population Mbao di dénoncer ci ni ñuy euh, jéem a jëlee suufu forêt classée de Mbao bi est-ce que mën nga ñëwaat ci ci ci lu euh, soxal nga def loolu noonu démb. waaw li soxal ñu def noonu donc ñett la parce que c'est vrai que je suis maire je dois porter. Euh, la parole des population xool lu ñu bëgg li baax ci ñoom ak li safaanu ci ñoom ma di ko wax euh, beneen bi euh, Omar mooy nii dañu xam ne aussi alors ñun balaa dara ñuy nekk maire dañu yàgg ci environnement di ci yëngu nekk écologiste yàgg ci environnement bi parce que am na ñu ma xam bu baax ci mbaaw xam ma ci département bi xam ma ci région bi ñu ma sa yëngu ci affaire yi environnement alors qui me connaît c'est que depuis 1994 laa jëkk organiser une marche contre l'agression de l'environnement de Mbam j'étais secrétaire d'ASC ñu nekk ci 98 def naa beneen toujours contre ay usines ay ñu fi newoon di def yu mel noonu en 2002 2001 euh, ma monté benn association bu ñu tuddee AJDM si objectif première yi mun na woon défense de l' environnement ñu organiser waat marche toujours rek pour défendre environnement nekk ci yu mel noonu je faisais partie aussi du bureau national de l' association sénégalaise des amis de la nature en 2006 man organisé na en tant que président de la commission jeunesse et sport et conseil municipal organisé na un camp de reboisement de 15 000 arbres dans la forêt classée de ci organisé aussi une caravane de dénonciation de l'agression de la forêt classée des Mbao mu ànd ak une trentaine wala cinquantaine de jeunes ñu dem euh, au fin fond du Sénégal dem Thiès dem Louga dem ba Saint-Louis def Gëmbal def Djoudj def jusqu'à la frontière Sénégal Mauritanie ca ca ca ba pour jàllale benn message yor ay flyers li ñu ci bind benn benn benn expression la ne touche pas à ma loolu tey eh, yàgg dañ ko dox mais Omar ba ni ma nekk maire en 2014 j'étais le président de la commission de surveillance de la forêt classée de Mbao yi basé woon à Petit donc forêt bi nekk na lu ñu yàgg yëngu nekk na lu ñu yàgg défendre grande muraille verte ba ñu koy def en 2009 jëlee naa fii une cinquantaine de jeunes àndandoo ak ñoom dem ba Labgar on a fait deux semaines au mois d'août pour reboiser bokk ci ngay planter garab yi pour que l'histoire retiendra qu'une délégation de Mbao était venue pour bokk ci boobu nekkuma maire environnement daf ma neex ba ma demee France suma mémoire ba ma fa doon def à Lyon à l'université Jean Moulin c'était sur développement durable durable et nouvelle économie bon tey du pett waa mbaaw su ma jegee taxaw ne forêt bi lii jekk na fi waaye lii jekku fi lii baax na fi waaye lii baaxu fi waaye ñama xamul jàpp nañ ne mbiru politique lay wax jàpp nañ ne diw moo tax muy wax waaye dokk bi nga xamante ne mbaaw ñëpp xam nañ ma si lutte ba nga xamante nii day protéger l'environnement alors lii am démb ba tax ñu jóg mooy on a vu une situation ba nga xamante ni dañu ñu indil benn plat ñu ne ñu c'est une demande sociale la population de Pikine ñoom ñooy laaj ay cimetières il faut ñu am des cimetières départementales départementaux au niveau de la forêt classée de Mbao te bëgg nañu fi 10 hectares ma def benn analyse man personnellement ma ne. ville de Pikine bii laaj cimetière la ville n'a pas de territoire c'est le territoire des seize communes qui la constitu moom moo nekk territoire de ville et dans chacune de ces commune en tout cas dans onze de ces communes am nañu ay cimetière bon est-ce que ñooñu am seen cimetière seen mbokk ñu doon suul ku nekk bëgg a jege sa yaay wala sa papa wala sa maam est-ce que ñooñu ñooy laaj ay cimetière pour dem si forêt classée bi c'est une frange c'est deux ou trois euh, commune yu seen cimetière commencé fees ñoom ñooy laaj cimetière te ba ñu jegee jëlaat cimetière ñu dem ci maire de la ville waxuñu ko damal dagg forêt classée mbaaw dagg garab yi jox ñu ko pour cimetière déedéet dañu ne ko ñun kat am nañu problème cimetière cimetière lañu soxla un point surtout alors c'est le maire de la ville qui a qui a pensé à la forêt classée de Mbao moom moo dem si wax si Abdou Karim la ministre de l' environnement censé de defendre la forêt classée mu d' accord ci ak moom ñu ñëw ba ñu dégg moom di romanaat si si si si si bëy ñuy wax di wax di wax di wax ba ñu dégg daal mbir mi daal lu ñu war a taxawal la ah ñu jóg ne lii kat d' ñu si lu tax d' ñu si mooy Pikine bi nga xamante ni côté bi nga xamante ni armeeru Pikine Ouest bi nga xam ne ay cimetière am dafa fees dafa tàmbalee fees feesagul muy bëgg fees ñu ne cimetière yooyu 4 hectares la def na fa 50 ans Amar mais dese naa fees tuuti si des mais à côté de ces cimetières li sa Simon c'est un très grand espace de 5 hectares mu ëpp cimetière yi su ñu ko jëloon tey dolli ko si cimetière yi organiser ni ñuy suulee feex 100 ans ils n'auront pas besoin de donc lan lan nga bëgg wax foofu noonu kon ñoom seen euh, doléance boobu noonu nekkul une des doléances fondées. non la doléance est très fondée dañu bëgg cimetière parce que cimetière baa ngi fees la doléance est très fondée fan la ñu war a def cimetière yi c' est là où moi je propose que nañ def ex l' extension des cimetières qui sont pleins lii ci biti te mat cinq hectares nañu ko dolli si 4 hectares yooyu et le problème est résolu au lieu ñëw di di déclasser benn forêt et puis ay garab. te ñii dëkk pikin soo leen laajoon nga leen ne est-ce que da bëgg tey seen way jiitu yi ñu ñëw suul leen fii fa ngeen daan suul ñu jege seen ay mbokk loolu ngeen bëgg wala da ngeen bëgg dem ci forêt classée mbaaw ay la yéwén ñoom seen bopp dinañ la wax ne bu ñu sañoon kat ñu am fii suñuy cimetière suñu wet suñu bëggee ziar ñu tax dem ziar ci donc lan moo war a mën a indi benn soubassement moo war a tax tey ñu suuf parce que si on comprend bien gis nañu lay wax ni mu nga fa waaye ñu ngi ko commencé dagg benn benn di ko jaay ay kër dem leen seet mënuñu ko def cimetière mais ñu ngi ko tàmbalee tabax am na ay hangar yu fa joxe ay ay usines yoo xamante ne tey ñu ko clôturé donc dama xamul ndax maire bay joxe wala c'est les services techniques de l'État wala c'est la ville wala c'est l'État xaw ma mais li ma mën a wax mooy armée mu bi ci biir mais li ñu mën a seetlu mooy am na ay kër yu ñu fa commencé tabax benn benn. am na ay engrais ñu fay def su doon demee vous pouvez prendre des vidéos là-bas des PC. est-ce que ministre environnement bi bind na la ne la dama bëgg a jox hectare fu ñu defar fii mini kii cimetière. waaw xam nga ba ñuy commencé daawi jéeg wala daawaati jéeg la même la ville mas na ba ma ko tontoo avec des arguments yi n'est pas revenu parce que jàppoon naa ne je l'ai convaincu jubboowu la Abdou Karim Sall bi mu jubboo Abdou Karim Sall lañu teg seen biir ñëw ñu wax ci ak man jëluñu euh, parce que si on si c'est un projet war nañ si wax population bi. Mhm. si net bi lañ gis si Facebook bi que ñu ngi remercier Abdou Karim Sall ak Timbo parce que ñoo dox ba ñu am ay cimetière si biir forêt classée Mbao les charges de de de de de de muy dégré quartier ak imaam yi ñoo ko wax alors ils n'ont pas démenti man ma def poste ne na soxlawuñu ko fii c'est pas c'est pas c'est pas pertinent bi waa dëkk bi jege am xale yu taxawal benn plateforme tudde ko plateforme pour le développement durable de dañu ko seeti mu jox leen audience ñu dem euh, au ministère de l' environnement et du développement ñu posé ko ne ko ñun dañu dégg ne dañ bëgg a dagg suñu àll bi te fii cimetière ñun on n'est pas d' accord mu ne leen ne su waroon a am procédure bi si man lay jaar man la ko président la jox je au courant d'aucune procédure visant à déclasser la fore classée de Mbao pour des cimetières départementaux C'est lui qui parle. Et je ne suis, toujours lui, je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Et si ça devrait se passer, je serai du côté de la population. Comme vous vous dites non, moi je dirai non. Mais pour l'instant, il n'y a aucune procédure en Il les a reçus le mardi 23 juin 2020. Il a tenu ses propos. Une date symbolique moi je suis dans l'administration. ma gëstu je je lui avais donné la présomption de bonne foi ni kii kat kilifa la ministre la jàng na alxuraan xam na li yàlla wax si wax safaan bon lu mu wax rek am na. may dox di dox ba daje ak benn lettre lettre baa ngi nii moom le ministre de l' environnement moo ko bind lettre bi c' est le 15 juin 2020 mu adressé ko kan le gouverneur de la région de Dakar lan la koy wax ci biir mu ne ko dama bëgg nga convoquer la commission régionale de conservation des sols pour ñu wax si 10 hectares yi nga xamante ni moom le maire de la ville de Pikine di laaj sa forêt classée ñu war ko jox ndax seen réunion boobu moo ma tere ma woo la commission nationale suñu paree jox ko président il a écrit ça le 15 juin huit jours après il reçoit les jeunes de Mbao mu ne leen ne il y a aucune procédure euh, en cours je ne suis au courant d'aucune procédure et je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cette affaire et su fekkoon war na am man damay damay rangé wu ci côté population bi je dirais non lii moom moo ko signé su fekkee du moom wala kayit bi amul nañ mu yóbbu fi ma war a yóbbu xam nañ donc moi je di dis que war nañu jox cër population bi position bu autorité jël am na ci droit mais na assumer. nekk ministre de l' environnement fan yii dégg na leen coow te démb ba ngeen des rendre gis nañ nga gis nañ ci pancarte ngeen bind ko. ci situation bi nga xamante ne si la nekk léegi muy affaire gazelle oryx yi ba nga yëgee loolu ba la mooy sa réaction mi nga xam ne sa xel màcc na si wàllum environnement. waaw xam nga dafa nekk lu doy waar fi ñu toll mooy eh, ku nekk rek jox ko li mu xam jox ko li mu moom mois je sais am na lu ñu ko doon jox si la mu jàng maîtriser ko xam ko dund ko du def yenn erreur am na ñu doon nekk ministère de l'environnement ils vont jamais accepter yenn mbir yi mais aussi su fekkante li nga nekk de sang de cœur mais aussi par désir bu nekk ci sa biir xol amu ci si su juste une fonction boo war a remplir pour dem am na yëg-yëg bu dul nekk ci yow yëg di wax dafa gën a wóor yër di wax ñiy yëg mbir mi yëg xam écologie xam. Euh, euh, euh, environnement ñoo mën a dox gis nga li ma ci xam si développement durable on te dit le développement durable à trois piliers les trois piliers du développement durable c'est l'économie c'est l'écologie c'est le social si vous avez ces trois piliers remplis on dit que le milieu est viable vivable équitable et nous avons un développement durable. Tant que ces trois piliers ne sont pas respectés, on ne peut pas tendre vers un développement durable. Si les ministre développement durable ne respecte pas l'écologie, on abat des arbres, on abat des animaux sauvages. Non, nous avons un problème. Et le problème est sérieux. Et le problème est très sérieux. Depuis année deux ans, le trafic de bois dafa accéléré wu depuis année yi l'occupation des littoral c'est comme du jamais vu depuis années yi vous avez vu qu'on essaie de lorgner les terres qui sont à l'intérieur des forêts classées ce qui restait c'était les animaux ce qui nous restait c'était les animaux waaw ñun ah, yi mbaaw lañ dëkk xam naa bu dee togg nañ ko ba ñuy togg invité wu ñu ñu naa dañ ñu fàtte invité mais je sais pas j'ai pas euh, l' information exacte par rapport ndax dañu ko rey wala rey ñu ko mais man je me dis que euh, nit daal am na lu mu war a jombale boppam quand il je veux pas bëgguma di wax ci kenn trop Mais quand il directeur de l'ARTP, il s'est tapé deux radios. te moom moo war a joxe fréquence am na benn mbaaw mbaaw FM am na benn Orkadiéré Or FM si yi ma xam man laa wax boo waree joxe bul jëkk séddu bul ëppale ci cër yi mu jël séddu bu ñàkk amee sax nga ñàkk joxel ñëpp yàlla yorul seen yëf joxal ñëpp mais bu dee yow yaa war a joxe te yow yaay séddu d'abord ñu joxaat la mala yi nga bokk si ñu jëkk séddu amaat ci lu kenn amul si quelque veut me croire que y a pas de conflit d'intérêt y a un problème dans ma tête et surtout quand il s'agit de quelqu'un récidiviste qui l'a fait avec les fréquences de radio mais qui le refait avec les animaux euh, man daal bëgg naa ñu xoolaat ñu ñu fal du ki ñu fal mooy def erreur ki la fal yaakaar la am ci yow te yaakaar nag moo tax ñu dem màkk yaakaar moo tax ñuy julli yaakaar moo tax ñu jubli penku ki la fal yaakaar la am ci yow bon boo waree ñàkk lépp ñi si des am sax ñàkk ko waaye buñ amee si yow yaakaar am si dëkk bi ñu la dàq jàng am si dëkk bi ñu la gën a xam li nga yor am si dëkk bi ñu la gën a compétent kii ne déedéet gisuma loolu man kii laa ci yaakaar jox la ko waroo séddu joxe lépp nga xaar yax say mbokk joxe lépp gis nga yonante bi bu ñu daan dem euh, xare mhm. suñu gañee ba am ay butin mhm. maanaam am ay orax lépp lu ñu am bu ñuy séddale mhm. day jox ñeneen ba mu jeex bàyyi ay mbokkaam buñ paree ñu ne ko mais yow jox nga gaa yëpp léegi ñun lu ñuy am ñu ne ko waaw mu ne leen léegi ñoom li ñu am du dem nañu ax moom yéen jël leen sama jëmm ñu dem ax ñoom gën fanaan loolu mooy doylu ku doylu ñàkk ko dara surtout lu ñëpp moom bàyyi ko ak nit ñi loolu daal laa si am lu ma ci wax ndax comme fekkewu ma dégg lañ ci am ax ni coow li baree euh, directeur des parcs nationaux wax na te wedduwul ne am na la mu wax mooy xamuloo woon sax dafa jëmoon si euh, euh, parc bi xamul woon ne ministre bi moom moom parc bi waaye ñun leer nañu ne ministre bi moom moom parc bi am na journal bi bind ñaari parc yu mu amaat benn bi jam ñaaji benn bi xama feneen donc je me daal war nañu xalaat suñu taxawaay xam na lañuy ñuy defee en tant que élu xam li gën a am solo dooli si la waaye mala dafa doy waar la wax li ko metti nu wax li mu bëgg mënul wax li mu bëggul waaye nañu xam ne dañu am ay famille ñoom jab ñoom ñoom mala yi dañu am lu ñu représenté xam nga ne soo defee développement durable am na ay dëkk comme en Allemagne dañu jël nit ku yor ay mala fay ko ay milliards pour mu defaraat ay suuf xam nga lu mu yor ay abay ay janax ay mbir yu demee noonu jël suuf soo xamante ne ay usines ñoo fa newoon ba mu yàqu ba garab mënatu fa sax mu indiwaat fa ay abayam ñu indiwaat ko écosystème bi mu indi ay rongeurs ñu dugg ci biir suuf bi pour que la la sol soit aéré ngelaw yi mën ci dugg suuf bi dundaat mel na mu mel ñu jëmbataat fa garab ba suuf sa mel na mu meloon lan moo ñu ko mën indil mala yi dafa am lu ñuy jouer dans notre vie il faut qu'il soit la pour nous mm-hmm. nous devons être là aussi pour les animaux waaw li may tàggatoo de mooy sant ñi ñu doon déglu yëpp di wax ne bu dee am na lu ñu ci lu ci dëgg lu ci dëng ñu jéggal ñu xam ne du woon suñu yéene wax bi yëpp pour indiwaat nit ñi si li ñuy war a fi ñu war a tegoo la waaye di sant euh, référence nga xamante ni ñoom ñoo déplacé wu ñoo waxtaan ak ñun waaye aussi suñu xarit suñu doom ndey di maam góor jazaaka yàgg joué partition ci dëkk bi lu yàgg lool lu ëpp ñaar fukki atax lu teg bon su continuer ci loolu lu ñu bett di nuyu waa mbaaw gi yëpp di nuyu waa département de Pikine di nuyu waa Sénégal ba ci Sénégal yi nekk à l'international ñu xam ne daal lenn rek moom moo am solo c'est le Sénégal Sénégal bi ñu amoon solo nag nañu àndi ñun ñëpp ñu sauvegarder ñu défendre ko jaare ko ci nit ñi jaare ko ci mala yi jaare ko ci garab yi